mbokk yi eh, mbokk yi ñuy seetaan ci télé bii di Shamsu TV wala sisit bi ñu ngi am mbégte ñëwaat beneen yoon ci seen émission bi nga xam ne daan nañ ko def ci jamono yi tudde won ko rijalun hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu jallon ci xaj bu njëkk ba bu ga del ci wat ci deuxième xaj bi war ci ànd ak ñeneen ci ay góor ay sahaba yo xamne ñu ngi nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom jëmm xéwal la yonent boobu nga xam ne moo taxaw fexe ba yar ay góor yoo xam ne islaam teddee na ci ñoom islaam leeree na ci ñoom islaam tasaaroo na ci ñoom ba nu mu egsee si ñun ñu nekk ñoo xam ne yàlla da leen a tànn boole na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu yàlla na xéewal ak mujj nekk ci moom ak ay saxaabaam ak mboolem ku leen topp ci njub ñi am bu baax ziyaara tamit di leen ndokkeel ci lu ngand lii lu am solo lu rëy lii nga xam ci lañu dugg di sahru ramadan al karim nga xam wer weer la woo xam ne weer xam-xam la ndax ci la alquran wàcc ci la téere yépp wàcc ba pare la yi alquran la la weer la moo xam ne yàlla subhanahu wa taala da ci bëri li muy wàccee ci ay nafaxaat ak ay barakaat ak ay raxamaat ba ci li nga xam ne sax moom la yonent bi wax na ko mooy da ciy goreen ay nit safara kon weer woo ñu leen ci ndokkeel ñu war kaa tàmbali suba ci lënd bi di leen ci ziyaare leen ñëpp di ñaan yàlla yàlla def ko muy weeru xéewal weeri soppeew weeri woo xam ne buñ ci génnee dinañ gën a raxasu ci mbooleem tilim yi ci mbooleem ñaawteef yi ci mbooleem taq-taq yi yi ajowoo ci wàllu jëmm yi yu ajowoo ci wàllu xol yi comme niñ ko waxee léegi rek ba ñuy commencé ñi ñëw suñ émission bi nga xam ne ñi ñuy ëpp di bëgg ñu ci bàyyi xel mooy ndaw ñi li tax ndax dañuy jàngat ay góor yoo xam ne mën naa am seen dund li nga xam ne ëpp na loo xam ne li nañ ko ci islaam ñi nga defee ci seen ndaw waxoon nañ ne euh, islaam la ka may doole mooy ndaw yi kon émission bi daanaka mën nañu wax ne ndaw ñaa ko moom ñi defoon premier xaaj ba waxtaan ci ay saxaaba yi tedd ñoo xam ne seen dund yëpp dañ kaa sacrifice seen dund yëpp dañ jox islam ba tax islam am doole islam tasaro tey ci suñ premier xalqa ñi wara andak ànd ak waxtaaneeg yéen ci kenn ci nga ne alquran moo tagne, tagg ne min almuminina rijalun sadaqu ma alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يالا دي نينا امنا تي جولي ني اي غور يو خامني دانيو دغال با بري دغو تي لاغا خامني موم لين كولرانت اك يالا سبحانه وتعالى مو نيك لو ام سول ييب واسي باي خيل موي كولر ليغا خامني دوخنا سي ديغنتي سي بروم تي اي جامو يالا تي ديفار ادينا بي تي تاخاوي مينديفي yooyu yëpp ci ay xeeti yi ñoom na dañ kaa dëggal ba pare dëggu ci nekk ci ba ñoo xam ne yàlla jël na leen ñoo xam ne ñi ngi xaar ñaan yàlla nag yàlla boole ji ci ñoom te yàlla nee na ma soppi du ma soppi mukk as soppi kon góor yàlla yooyu nga xam ne alxuraan mi ngi wax ci ñoom ba léegi rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bay'un an dikrillah ñooñu ay góor la ñoo xam ne du leen ittaloo mukk njaay wala commerce wala yeneen yoo xam ne soxlay àddina la ci tudd li nga xam ne mooy yàlla ñoom dañuy taxawal julli dañuy joxe adak dañuy topp yàlla ci lépp loo xam ne digal na leen góor yooyu bokkoon na ci ki nga xam ne moom la ñuy jàngal moom la ñuy jàngat tey dundam di saxaaba bu tedd bi ñi koy wax Saïd ibnu Zayd ibnu Amr ibnu Nufayl nga xam ne maamam wala baayam boo ko déggee xam ne ku teddoon la kon saxaaba bii di Saïd ibnu Zayd moom lañ bëgg a xool tey siiraam jàngat ko ñi mën cee jëriñoo balaa ñooy dugg ci moom dañuy wax lu tuuti ci ki nga xam ne mooy waajuram di Zayd ibnu Nufayl Zayd ibnu Nufayl dëgg la mu ngi doon dund Màkka bokk ci famille bu mag boobu ñu koy wax Xuraysh te ku dégg famille Xuraysh xam ne ñoom liggéey nañ lu ngan ngan ngan màkk xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa bokk kon moom mu ngi bokk ci famu bu tedd boobu famu bu màgg boobu famu boobu nga xam ne ñoom ñoo jox màkka gannaaw yàlla xëy ba am màggaay gi nga xam ne am na ko Zayd moom moom mooy bàyyi saxaaba bi ñi jàngat tey di ibnu Zayd moom dañ doon wax ne al xanafiya la woon bu ñu waxee xanafiya mooy mu ngi nekkoon ci diine yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam loolu am na histoire boo xam ne dañ ci gaaw benn jour génnoon na ànd ak ki nga xam ne mooy Waraqatu ibn Nawfal kooku bi ñu ko waxee ñëpp xam nañ ko ci siira ah ñi ànd di seeti diine joo xam ne mooy diine ju jub par yàlla dem def ñu dajeeg ay kàngam ci yeneen diine yi waaye moom saa yu ñu ko waxee danaan man diine ju soxla yàlla kese lañ ciy jàmm duñ ci bokkaaleeg leneen. ba waraqati nu nawfal moom ñu ne ba dafa gis diine chrétien gis set ga mu dugg ci waaye moom da ne man duma mën a dem jël benn diine koo xam ne yàlla amu ci moom ci la dem sax si diine joo xam ne mooy diine yonent yàlla ibrahima alayhi salaam moom moo jur suñu waa ji di saïd ibnu zayd kon mooy turam moo nekkoon saïd ibnu zayd ibnu amr ibnu nufayl ibnu abdul uzza nga xam ne kenn la ci maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam adi moo nekkoon maamam kaabu jur ko bu bokk ci Quraysh comme ni nga ko waxee léegi mi ngi tuddoon Fatima bintu Baja bokkoon ci banu Xusaa nga xam ne moom tamit giir bu ngan la woon ci giir yooyu giir arab yooyu soxnaam mu ngi nekkoon Fatima bintu Xataab ku dégg Fatima bintu Xataab xam ne kenn la ci tamit Euh, ci ndaw yi nga xam ne jigéen lañ ba pare jiitu ci islam mooy mbokk mu jigéen ci Seydina Omar ibnul Xattaab nga xam ne mën naa am dina ñëw ci kanam ci siira kon kooku ñoo ñoo nekkoon famem mu ngi juddu gane si àddina avant ñi wala xablal beexsa avant ñi yónni yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay at am nañu ne ci fukki at ak lu teg waaye lu gën a wér mooy avant ñi yonent bi bu fekk ne gën si na àddina ca màkk comme ni nga ko waxee waajuram nekkoon ku am diine te bu ñu waxee mooy koo xam ne mu ngi woon ci diine Ibrahima alayhi salaam bokk ci ñi nga xam ne dañoo jiitu ci moom Saïd ku teel dugg na ci islam ndax environnement bii ak bi nga xam ne moom la yaroo bii ak tawxid la kon ba mu gisee yonent bi sallallahu alayhi di oote ci diine diine tawxid ci la gaawtu dem. ak soxnam sosu dugg ci islam ngir mana anda ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngir mën kaa dimbale ngir la nga xam ne eh, moo nekkoon objectif papam nga xam ne hadaf bu rëy boobu mooy xam diine yàlla ji moom mu mën kon lolo mooy lenn ci nasabam mooy bon moom gis nañ ne si askan wu tedd la bokk ndax si xurees la bokk ñaareel bi si environnement bu baax la yaroo ndax papam ci diine ju nekkoon mooy diine yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam nan la duggee ci islaam loolu dinañ ko xam ndax lu am solo la li muy wane mooy ne bon nit ki boo gisee lii dëgg gis ne li mooy yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jubbi waroo xaar kenn moo tax ku teel a dugg la ci islam ndax ca bii ab bu mu bokk moo tax dugg na ci islaam bay islam di tàmbali. loolu bi nga waxee xam nañ ne étape bu compliqué la woon étape bu métti la woon étape bu garaaw la woon mooy li ñuy wax bidaayatu daaw ci la dugg ci islam ba mu duggee ci islam nekkul koo xam ne dafa des gannaaw ci islam waaye dugg na ci islam booba arab bi yépp ñu ngi jublu ci oote googu noonu ndax oote gi bees la woon ci ñoom nekk loo xam ne xamuñ ko woon léegi nag ku ci dugg moom da ngay moo tax bay islam di tumuraanke booba moom mu ngi ci islam kon dund na fatara li nga xam ne mooy fataratul xurba ci islaam kon moom xam na lu bari ci islam fatra boobu nag ñu sa dund ñëpp ñu tedd lañ moo tax boole nañ ko ci ñi nga xam ne daan na ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di teew moom ca xaaru xira foofu des fois histoire di ci indi lu bari waaye yenent bi sallallahu alayhi a sallam avant ñu ko yónni daan na dem xaaru xira waaye bañ ko yónnee tamit daf ko dafa di dem foofu di fa gën a jaamu yàlla ñi am xam ne njëkk nañ kaa gëm ku ci mel ni Seydina Ali karamallahu wajhahu ku ci mel ni Seydatna Khadija ku ci mel ni Seydina Abubakar ñooñu ak kii ni ñuy waxtaanee di Saïd ibnu Zayd daan nañ dem di ànd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xuntu woowu noonu di jaamu seen borom kon moom bokk na ci ñi nga xam ne teel nañoo ànd ak yonent bi wa sallam ci di jaamu yàlla wax nañ ne bokkoon na ci. ñi nga xam ne daan na ñëw jiitu daaru arqam ndax après ci xaaru xira ba ñemee ne mënatu nekk daawa gi di am foofu ci lañ jéem a ut benn place benn chaise boo xam ne dañ fay continuer di jaamu yàlla continuer di fa oote islam ñi tànn li nga xam ne mooy daaru arqam in abil arqam moom bokk na ci ñu njëkk a dem foofu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mën a sàmm islam bi pour mën a euh, fattara xurba boobu islam nekkoon ñu man kaa protéger ba nga xam ne islam dina yegg fa muy amee doole ba mën feeñ moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon bokkoon na ci tamit ba mu demoon na bañ koy considéré ci ahlu sura ahlu sura bi ñu waxee ñu tuuti lañ ci saxaaba yi daanaka moom la ñu wax ne ñoom ñooy asara mu basirin bi jël na ñi nga xam ne tudd nañ leen ci benn jotaay moom bokkoon na ci ñi nga xam ne yeneen bi daan na jël seen xalaat ci biri daawa gi kon moom dugg na ci islam waaye teel a dugg bi tax na mu bokk ci jàmbaari islam yi bokk ci kàngaam yi nga xam ne ñoom ñoo teel a gérer li nga xam ne mooy islam ay jikkoom ak ay réasiyam ci diine ji dañ koy wax ne ba mu duggee ci islam musta xaaraantu pour doxal li nga xam ne mooy ndimbalam ci daawa bi ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokk na ci jikkoom nga a màgg mooy moom daan na joxe bakkanam ak alalam lépp pour li nga xam ne mooy islam bi taxaw jëm ci kanam bokk ci jikkoom yi nga xam ne xamee ne ko nga xam ne ñun jeunesse bi ñun jullit ñi war nañ kaa roy ci saxaaba boobu mooy kaana maarufan bil juud te loolu dañ koy wax ci weeru koor lu bari kuñ xamoon la ci tabe te loolu toujours dañ koy wax loolu ñoom ñi nga ko donnee jàngee ko ci yonent bi sallallahu kon ku tabewoon la tabe nag bi ñu ko waxee mooy lépp loo xam ne soxla nga ko da koy joxe waaye joxe nga nag ca la gënoon a neex mooy ñoom ñu ko doon def mooy di ko joxe ci yoonu yàlla kon ku tabe la ku bëri woon yërmaane la moom Saïd ibnu Zayd bokkoon na ci ne ku dëddoon la ku dëddoon àddina la soxlawutoon àddina ku amoon ragal yàlla la ku muusoon la ñaareel bi tamit ku bari woon xamxam la ba pare ku ñeme am doole maanaam yii ay jikko la yoo xam ne bind nañ ko ci moom ne Saïd ibnu Zayd ibnu Nufayl amoon na ko kon yëpp boo xoolee kon moom dugg na ci islam waaye la ka gënoon amal solo mooy jikkoy islam yi mu teel kaa jël di ko dundee ba nga xam ne seddal nañ ko kon euh, dina leer ci kanam kon. Euh, booy roy ñii loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax ne ñoom ñëpp ay bidiw lañ ci koo jëlal roy ko mooy jot nga roy kon ñoom dañ leen war di roy wax nañ jigéen mu teel a ci islam ak jàmbaar bi mu amoon wax nañ jikkoom yi yi si gën a am solo yëpp ay jikko islam mooy dëddu àddina nekkutoon koo xam ne dafa bëgg àddina bokkoon na ci bëri xam-xam xam-xam bi nag buñ ko waxee mooy lépp da ko doon service ci li nga xam ne mooy pour islam jëm kanam moo tax ñuy wax ne bokk na ci li nga am ne day feeñ ay jikkoom euh, dénkaane guñ ko dénkoon pour Dimashq ba demee ba gañe côté yooyu dañ kaa waxoon ne ko dañ lay fal nga nekk gouverneur ci Dimashq waaye dafa gàdd ne man de may génn di topp li nga xam ne mooy xare yi di xeex ci yoon yàlla moo ma gënal téeméeri junni yoon may toog ci yore ay place yoo xam ne dama koy occupé ci dëkk bi loolu gënalu ko loolu dafay wane ne moom ku dëdd la woon ñaare bi soxla wutoon li nga xam ne mooy wilaaya mu bokk ci yi nga xam ne liggéey na ko ci islam mu nekk lu am solo nga ne ab jullit warul toog di sàggan lu mu tuuti tuuti war na defar dara islam kon moom bokk na ci wax nañ ko mooy ci jamonoy tumuranke lu mu liggéey ci islam mooy dox na ci bépp kàttan bu nga xam ne am na ko ci doole ci alal ci xam-xam pour ñi tasaare islam kon loolu bokk na ci li nga xam ne dañ ko kay ak li nga xam ne mooy défendre islam ca mag bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jiite woon ñaari place yi nga xam ne fa la yonent bi doon ootee mooy jabalu Hira ak daaru Arqam kon si ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon jiite gën a mooy lan mooy daan gën a soññ nit ñi dugg ci islam pour seen gëm yàlla gën a dëgër gën a mën a sax kon moom daan na liggéey ci loolu bañ gàddaayee dem Medina bokkoon na ci ni demoon gàddaay ci la xare yi commencé am amul benn xare boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi taxawee na ko lu dina fekke benn rek la teewee wul xeex ba mooy xasatu Badar ndax dafa bokkoon ci ñi nga xam ne yonent bi nee na tànnoon pour ñu nekk ay ay agents secrets yoo xam ne dañuy wër di ut ay information ci yëfër pour indi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi tànnoon moom mu woon ah, kii boobu noonu mbooloo moom bañ demee ba xeex bi jeex yonent bi ñëw mu taxaw ci la yonent bi yëkkatee ndeysaan xeetam gi samp ko ci kanamu jullit ne moom de fekkewul xeex bi waaye xeetam gii maa ngi koy seedeel na fekkee na xeex kon kooku loolu màggaay la place la bu rëy ci yonent bi ak jege gum jegoon yonent bi ndax la doon indi ay information dimbale na jullit ñi ba xeex boobu ñu gëñe woon ko keroog te moom moo jiite woon wàllu woowu kon loolu ci ay mbiram la bokk bokk na ci gannaaw ba yonent bi faatoo ibbi yi ibbi yépp yeneen dëkk yi moom da ci doon bokk ba nga xam ne sax nee nañ ci Dimisq bañ koy tijji ñu wër li nga xam ne mooy yéefar yi jullit ñi dugg moom mooy ki nga xam ne moo poussé ki nga xam ne mooy Xaalid ibn Walid pour mu songu moom mooy ki nga xam ne moom moo joxe ordre ba Xaalid mën a mën a mën a mën a mën a songu euh, ñi daal di gañe ca xeex boobu bokk na ci Yarmuk fekkee na ko bokk na ci xeex yi bëree yoo xam ne daan na am diggante julli ñi mu ciy bokk te bu ci bokkee dafay bokk ca ñi nga xam ne ñooy njiit ya bokk ci ñi nga xam ne dañuy sabab jullit ñi gañe kon moom na nañoo wax ne bon jàmbaar la woon ci li nga xam ne mooy islaam rawatina xeex bi nga xam ne moom moo doxoon diggante saam wala jullit ñi ñi nga sa saam jullit ñi ak ñi nga mooy romain yi nga xam ne ñoom ñu bëggoon a jël saam moomee da ko seen bopp moom bokkoon na ci njiit yi nga xam ne jiite nañ xeex boobu daal di gañe ñi nga xam ne ñooy romain yi ba islam dooleem yëkkatu foofu lool kon moom yooyu ci ay mbiram la bokk ci ay ijazaatam la bokk ngëneelam ci biir saxaaba yi am na ngëneel gu rëy boo xam ne buñ ko tuddee rek boobu doy na ak li nga xam ne yonent bi moom la ko seedal jëlee nañ ci hadis ne loo xam ne dafay leeral dëgg dëgg dëgg ngëneeli saxaaba bii di Saïd ibnu Zayd ne bokk na ci fukki yi nga xam ne yonent bi lim ne leen ne aljana lañ jëm kon ñooñu yoroon yonent bi da leen gërëm lim leen ba mu leen lim boobu mu ngi ca commencement daaw saxaaru xira ne aljana lañ jëm moom solo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñoo xam ne aljana lañ mu lim seen tur ne Abu Bakar Seydina Abu Bakar aljana la jëm Seydina Omar aljana la jëm Seydina Ali aljana la jëm. سيدنا عثمان الجنة لجم وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا أبو عبيد وسيدنا سعد بن أبي وقاص من هناك فقال فعد هؤلاء تسعة من ما كنت جروم نينت نيونيو لكي دادي نوبي بام نوبي جاينا نكو ne نكو آ نيني نيني ko ah ñun ñi ñu lay مني دا yàlla di أبا الأعور ci yàlla yow mu وحني dàkkantale aba abal awar ci wàccee boppam ci tawaadu am moo taxoon tudd sax boppam mu ne leen abal awar moom ci fukki yi la bokk moom moo leen fukkeel kon loolu ngëneel gu rëy la loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi boole na ko ci taxawoon nañ ca jabalu xira noonu bañ taxawee yonent bi di wax xira naan ko bu waxee jabalu xira rek na ngeen xam ne booba sa commencement daawa loolu daanaka téere yu bëri duñ koy indi yonent bi di ko wax naan ko yow dëgëral yow xira ndax nekk na ci sa kaw yonent boobu yonent baa fa nekk na ci sa kaw siddiq kooku mooy Seydina Abubakar nekk na ci yow shahid wala ay shuhada bu daal di lim ne Abubakar moo fa nekkoon mu ne rasulillahi sallallahu alayhi moo fa nekkoon Seydina Abubakar سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا سعد وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كلا بام لي مينيو نوبي ني نكو وا كان مو فكل بي مو نه مان man maa leen fukkeeloon te loolu mu ngi xewoon sa kaw jabalu Hira kon loolu ci ay ngëneel ba bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoon yàlla dafa nangu woon seen ñaan amoon na problème ak benn soxna dem xëccee moom suuf te moom yooyu taxu ko woon a jóg soxna si nag bu kaa wéddloo ci kanam mbooloo mi mu daal di ko làmmiñam jiitu mu ne ko yàlla na ma yàlla àtteel yow noonu la soxna si ñàkkee ay ay jiram ba mujj àll kon mom ku nangu woon ñaan la ci saxaaba yi kon loolu ci ay gëneelam mu ngi génn àddina ci bërëb bi ñuy wax aqiq ñi denc ko fi nga xam ne mooy Medina wala ka saxaaba yi jële sang ko kaka sang mooy Saad ibn Abi Waqas nga xam ne moom ci asal mubashirin la jana la bokk ak Abdullahi ibn Omar ñoom ñoo ko taxawee ñoo ko wàccee ci bàmmeelam daal di ko denc foofu ca baxee nga xam ne euh, yonent bi moo ko seereel ñaanal kon saxaaba bi ku ko dégg ak ay jikkoom ku ko dégg ak ay liggéeyam ci islam ak nu mu dugg ci islam ak lan fa liggéey ak fattara bi nga xam ne dund ko islam da gis ne lépp mën naa bokk ci rijaalun sadaqu ma ahdullah alay mën naa bokk ci rijaal xawla rasul ndax yonent bi sallallahu wa sallam moom moo ko seeree ci boppam yi jëm añaa la tax taxawaayam ci islam lu tax jikkoom yi tedd yooyu nga xam ne lépp islam la moo tax li ñuy gën a jàng ci moom mooy gëm yàlla gu dëgër gu nekkoon ci moom ak jikko yi nga xam ne jikko yi rafet la yu baax nga xam ne lépp ay jikko islam la nga xam ne ku sori woon àddina la ba pare jublu li nga xam ne mooy te loolu mooy li nga xam ne moom lañ soxla ci jullit bi loolu lañ soxla ci ndaw ñi loolu lañ soxla ci képp koo xam ne yaa ñi suivre di ñu topp nga nekk jullit mooy nga mel ni saxaaba yi boo mel tamit ni ñoom nga jël si ñoom waaye loo war a jël te waroo ko bàyyi mooy fexe ba nga nekk jullit àddina nga wan ko gannaaw jublu li nga xam ne mooy alaxira te loolu mooy lan mooy nga jublu yàlla subhanahu wa taala ñoom loolu lañ nekkoon pour lan ñi mën a euh, dem dugg ci li nga xam ne yàlla dig nañu ko mooy ngërmaaneem gu for googu noonu nga xam ne moom la wax ne ñi jiitu moom lañ am ci muhaajirina ansar kon kii mooy Saïd ibnu Zayd ibnu Nufay bokk ci xorays ñi ñëwoon ci xamale ko nit ñi ñi mën a gën a gëstu ci moom gën a mën a roy ci moom ba nga xam ne dinañ bokk ci ñi nga xam ne euh, mën nañoo am maqaama ñooñ euh, ba ëllëg buñ dajee ak yonent bi sallallahu euh, ñi mën a booxante du ndaw ndaw ndaw ak ci saxaaba yooyu kon ñuy jox leen dajee ba beneen yoon beneen saxaaba boo xam ne bokk nañ ci rijaal xawla rasul yi ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq liñ ci wax mi sawab yàlla boole ñu ko li ci njumte yàlla mottali ko wa dalika àla aziz wa wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu